Au nom d'Allah, le clément, le miséricordieux et le très miséricordieux et de par sa bienveillance. Assalamu alaikum wa rahmatullah à tous les Sénégalais. Assalamu alaikum wa rahmatullah ñu ngi nuyu ñëpp kenn ku ci nekk ci turam ak santam mais ñu ngi nuyu particulièrement la commune de Kër Massar bi ñu dénk may sant di gërëm tous les patriotes du Sénégal mais particulièrement madame la maire Khadija Mel Koor sant l'ensemble des patriotes qui sont présents di nuyu suñu bureau bi yëpp surtout nag sama comité scientifique bi di ay jeunes yu brave yu extraordinaire maa ngi nuyu mboolem journaliste bu fi nekk def la wu de loin pour ñëw ak kii des informations au niveau de la commune de Keur Massar may sant di gërëm les militants may sant di gërëm les sympathisants di bëgg a dugg nag ci benn actualité pour man sax dañ ko actualiser mais war woon ne actualité mooy ki nga xamante ni tey mooy le maire de Dakar ñu ko woowee Barthélemy Toye Dias mooy ku ñu bett mooy ku ñu rusloo mooy ki nga xamante ni tey mérité wul li ñu ko jox parce que ndax am na conscience que ni moom mooy meeru Dakar ndax faluñu ko woon pour mu am arrogance mais faluñu ko woon pour mu indi indiscipline bu notoire mais faluñu ko woon aussi pour muy def ni damay wax lu ma neex di wax ni moom Boy Town la li ma bëgg mooy yàq dara Boy Town yi parce que ñu xam nañu Boy Town ay borom idée lañ ay boroom xam-xam lañ. ay borom xel lañ ay jàngkat lañ mais ñu mën a sañse lañ mën a sol lañ te ñu intègre lañ te civilisé lañ mais un bon benn un boy town du ko xam ne c'est un vagabond day wax lu ko neex di saaga ay nit kooku def xamal bokkuloo si ñun ndax ñun ci xam-xam la demee en fait. deuxièmement ñu am lu ñu metti parce que réew mi il faut que ñu xam ne injure publique délit la infraction la te nul n'est au-dessus de la loi. mais dafa am ñoo xamante ni bi ñu faloo ba léegi dañ ne ñoom dañu fexe créer benn stabilité ci dëkk biir Sénégal ba le président Diomaye Faye ak le premier ministre Ousmane Sonko duñ gouverner normalement dañoo xamul li tax xamuñu mooy ñun ñooy garanti le projet ndax xanaa ñun patriotes yi et les sympathisants et les xanaa war ñu am ñàkk fayda gu tool ni xeex lii ak Macky Sall mu tegal ñu ay chars de combat am ministre de l'Intérieur bon ni Antoine Diome am lu fi yées ay Moussa Fall ñu lay nekk fi ñu xeex ak ñoom dugg ci kaso ñi ñàkk seen bakkan ñi am ci ay blessure ba ñu jox leen réew mi ba pare ñoo toog nag croiser les bras bàyyi ay na anaphonamène femelle di def lu neex ci ci biir dëkk bi naan la ñuy déranger wala la ñuy jëma saaga loolu moom du fi jàll. te ñu wax leen nee nañ lu ndaw le président Ousmane Sonko kenn amul fayam te maa ngi jël témoin sénégalais yëpp li tax ma leen jël témoin mooy que ni. yéen ñëpp gis ngeen bi nu convoqué Barthélémy Diaz tribunal Sonko dafa def lu ma frappé jour boobu dafa ñëw ba ci moom mu gaar oto mu Ousmane Sonko bi mu gaar otoom mu wàcc oto bi ni ko Barthélémy mu ngi ko naan mu ngi ko toogal ci ginnaaw man ma dem toog ci kanam Ousmane dem toog ci kanam bi mu toogee ci kanam la moo ko fa dal bal la ñu dóor ci vitre bi heureusement moo tax ñàkkul bakkanam te tey bu ñàkkam bakkanam ñun ñëpp ñu ñàkk te moom Barthélémy Diaz jaru kon ñu li ñuy wax xam nañ ko kon ngor goog mu ko lebal mu xëy fay ko njaam gu mën nii moo la Sénégal yeeg booy taw la ñëpp xam ne Barthélémy Dias c'est un traître moo jaatul dara ci Sénégal as néew bi amoon ñoo amoon ci yaakaar na yelwaan bi parce que xanaa nit un jeune du jël sama carte man dama koy voté ko xam dafa dafa dafa dafa dafa dafa indiscipliné comme daa am arrogance ma koy voté sama sama carte loolu jeunesse sénégalaise war na ko dépassé je pense que nag li ñu bëgg a jaay ñun Pastef comprendre nañ ko parce que li mu bëgg mooy mu ko dégg muy wax di ko bàkkoo ndax ñu ngi fàttali histoire na histoire ak Ndiaga Diouf kon li muy bëgg wax di ko bàkkoo mooy que ni def naa fi mbir tribunal daan na ma condamné na ma mais dara fekkuma ci. kon maa ngi continuer ci violence boobu mais maa ngi continuer indiscipline boobu indiscipline boobu noonu loolu lañu bëgg a jaay ñu koy wax ne ñun ko ñun du la wut ci terrain bu parce que ñun leer nañ xaju si yow côté bi gën a ndaw li nga fi li nga ko at yi mujj yi ki ci gën a ndaw mën dégg naa ko nag muy ay menaces di wax ne moom le le trente ñu dem tribunal Tambacounda monsieur Barthélémy Diaz man Mouhamed Bilal Diagne nee naa la 29 man damay fanaan ji. ñooy ànd ma ak yow. te gis nga li ngay jaay man dama tribunal de parce que ñu ay républicain lañ su la neexee nga dem tribunal am am nga ci droit ñu amuñu problème boobu mais man damay dem soutenir les patriotes de Tambacounda xaar leen ne seen leader rek ñëw défendre sa projet défendre leen. bu fekkee na nga fa ñëw wala yar ni la bàyyi mais boo doon duma la parce que ñun mënoo ñëw mënoo ñëw mënoo ñëw mënoo ñëw jaay dara ñu mënuñoo jaay dara lu ñu saf bu dee bu dee bu dee fit ñoo la ëpp parce que moo baax parti bi gën a compliqué àdduna am nañ ay imam am nañ ay doomu daara am nañ ay doomu jàngu bi église bi am nañ ay cadre am nañ ay militant am nañ ay xeexet am nañ lépp parti bu complet la Ousmane Sonko ne bi nga bëggee nag def ko sa morom àdduna du neex ba mu nekk sa morom ndax yow maire nga man maire laa te li ma wax nii dinaa dëgg sa bopp man la 29 dinaa fanaan Tambacounda man bi laa jaat te luñ leen mës a wax ci Sénégal yi xam na ni teg nañ seen bët ñun duñu waxantu di arrière wala ñu dellu ginnaaw ci leen wax fii loo fi indi rek fekk ko fi bu dee da nga jaay war Far West soyez les bienvenus welcome ñu par nañ ci lépp ak yow ci lépp lañ pare ak yow dañ la wan Ousmane Sonko c'est fini le capitaine du projet gàtt na combat boobu noonu te ci moom nga yem doo doo dépassé limite ma ak ku mën ci doon nag ci patriote dama dal leen seen xel ku bëgg dem Tamba sax mën naa tegal bus ngeen ànd ak ma ñu dem Tamba amuñ si problème ñun dëkk bi dañ ko war a yar war a ci débat d'idée Ousmane Sonko dafa am lu def def si ñun Ousmane Sonko bu ñu waxoon li ñu wax boppam dañ ko fay bàyyi naan sa waay laa ñu ko dama soyoon gëmuñu la Ousmane Sonko dañoo jaay Sénégal présenté ñu Sénégal nii les jeunes ñu ne ko naan mun am leen amul ci Sénégal man sama jëm Ousmane Sonko amul njariñ ngeen waxtaane amul njariñ mais ngeen waxtaane Sénégal moom njariñ ngeen bëgg Sénégal moom mooy la doon mën la waxtaanal ci Sénégal cinq minutes rek du ko def koo gis man man man man koo gis problème problème mais Sénégal intéressé wul nit ñi te li doon yoon mooy Sénégal boobu moo war intéressé moo war intéressé nit ñi parce que tey bu leen fàttali Amérique taux de criminel dafa la ëppee drogue fa la ëppee SBN fa la ëppee ngóor jigéen fa la ëppee lépp lu bon lu salte Amérique la ëppee mais la moo tax ñu ngeen a développé nit ñi di posé question yooyu noonu lépp luy caaxaan foo Amérique la ëppee mais lépp loo xamante ne mooy développement fa la lu tax parce que dañu am amoo ci patrie bi gëm seen réew bëgg seen réew seen biir xol na Sénégalais yi les jeunes les gentlemen les gentlewomen vous les nannités vous les boy town dama a ah, dama leen woo à ce que ñun ñëpp ñu bàyyi débat personne yi ñu def ko ci débat réew mi parce que réew moo am solo Sénégal moo am solo c'est le Sénégal qui est important ay nit am ay jëmm amuñu solo surtout nag ay jëmm yu arrogant ay jëmm yu xamul lu jox daw naka nga yore maire capital ñu war a gis ñi de capital 52 mënu see def dara lu tegu lu tegu man mii wax ak yéen maa njëkk nekk maire bind cour des comptes ni ko kay audité ma te nag loolu sax ngeen may ma ci ma taw si monsieur le président de la république Bassirou Diomaye Diakhar Faye monsieur le premier ministre du Sénégal maa ngi lay ñaan en tant sa maire parce que ñun li ñuy prôné ñu la war a jiitoo cour des comptes bind naa ko pendant trois ans maa ngi koy bind la pour ñu audité ma na ngeen ma dimbali yéen en tant que le président de la république et le dañoo woote le don de soi pour la partie agriculture totale et bu profond bu ñu paree nag nañ def unité maire Dakar problème dudd ñun xam nañ xamante nañ ñun li ñuy woor mais suñu salaire mosu man mosuma tim bulletin de salaire sama àdduna xam bulletin de salaire dafa weex xam di ko may ñi man dama mos gis bulletin dama ko gedd dama ko may sama population parce dama liggéey ak amour nag rus naa liggéey comme ça di ko fayeeku rus naa liggéey Sénégal di ko fayeeku yooyu moo war nekk débat yi doon soit yooyu sacrifice yooyu moo a fexe ba jar nga suñu zircon bi ba la plupart des ñu mën a reste réew mi réew mi mën leen mën leen mën leen dundal naka lañ mën def ba waxtaanee suñu ressources halieutiques yi naka lañ mën a wax suñu gaz bi nga ne tey ñaata jeunes ngay gis tey Sénégal ñu yóbbu leen ci débat politique mais dama ñu yóbbu leen ci réew mi ñaata jeunes ngay gis tey Sénégal ñu mën la wax le contrat de Neymar le contrat de Lionel Messi contrat yoo xam nañ ne ñaata lay joueurs yi fay fu leen trans xam nañ lépp mais xamuñu suñu diggante Mauritanie bi gaz mètre gaz cube ñaata la problème la ci réew da ngay bëgg gis ay jeunes ñu taxaw naan dëkk bi dafa mel dëgg xamuñu seen budget réew ñaata la mooy Sénégal bi wër di wax nit ku ñaaw di wax ci nit guddee ba ca tax boo ko laajee sa poids yaram ñaata xamul poids am boo ko laajee groupe sàngam xamul groupe sàngam loolu dafa war a jeex ci réew nañ jëm duñu débat yu essentiel yi xool leen xool leen un exemple mën nañu jox moo gën a yaru may laaj ban président ngeen gis ku gën a yor Abdoulaye Diomaye laaj leen ko sëriñ si mooy le président de la république moom Bassirou Diomaye Diakhar Faye il est le président de la république Sénégal mais bu ñu waxee yow day mel da la ruus waxee yow du sax si ki xool la day day mel kuy lox ndax ndax lan discipline ndax yaru xoolal le président Ousmane Sonko woon naa bépp nit ci àdduna bi kenn moom moo si gis le président Ousmane Sonko saaga saaga ci gémmañam defee naa kii kon ku ko ko génn amul mësta saaga nit ndax am yar ndax am dal ndax am ngor ndax am reconnaissance ci doomu aadama yi fal na fi ku ne trahison bi ne dégg na ko mais mosoo dégg wax wax bu ñaaw ci nit mais ko am di du la saaga te foo képp ku saagal soo ma dal ma ak amatu lu ma ci mel ñu coot ñu dool ñu cetuwee te loolu que nul n'a le droit de faire la loi tant qu'il y a la infraction te kenn woowu leen ci juste amu ci dara amu ci ñu yorle ko suñu bopp ku mu saagaat Sonko nday ñu dal sa kaw ak koo mën ci doon nag maytuma ko ma sàmba maytuma ko ma demba maytuma ko kii konk te ku weddi li may wax ni di dëgg sama ma dëgg sama bopp ñun bu ñu gis na parti bu ñu amee yar ab éthique am moo ñu bëgg a bëri moo tax sañu ñoo wax bu ñaaw nit sañu ñoo saaga nit sañu ñoo xas nit ndax suñu leader du ko def Ousmane Sonko du ko def du ko def lu mais pourquoi ay nit war a jóge di ñu saaga nday ñun ñun ñu ànd ak Ousmane Sonko après di saa Ousmane Sonko nday fu ko teg arrogance bu indiscipline la yaa ngi war a servir un pour très ñu suñu ñu xool ñu ñor ma seen exemple bu baax ñu mu saaga ëllëg xale dañu war a màgg saaga sëriñ si ñu lañu xool abbé su ñu lañu xool képp ku nit ku baax Sénégal ñoo ngi am nga référence su ñun am nga cofeel su ñun kon ñu dañu war a bon dañu war servir wala très bon exemple ba pare ma rappelé waa ndaw ñi nañ leen def des mobilisations et des mobilisations man mii di wax ak yéen xam ngeen du ma candidat suñu parti def cumul de fonction mais le 2 novembre maay def fi ngandam meeting fii Kër Massar meeting bu ngeen mës a gis invité naa képp ki patriote yi Sénégal le 2 samedi le 2 novembre maa koy def fii te xel jaamee ko dina ñëw incha allahu rabbi kon ñu xam ni ñu parti bi ñu yor parti bi ñu yar la ci amour pour Sénégal Ousmane Sonko boo gisee ñu am ci moom cofeel bi mu jaral suñu live parce que li mu def ñun la daf ñu jaay patrie bi bu ñu jaayoon boppam du ñu ko topp du ñu ko gëm mais dafa am dafa am ngoot Ousmane Sonko wan na yéen bu ngeen ma bëgg Ousmane Sonko dafay gêné wu ni toog naan ko yaa fi ne bëggul loolu la gën a bëgg àdduna ma wax ko tey li ma gën a bëgg mooy ku comprendre li mu woote idéologiquement mu xam que Sonko Sénégal la bëgguloon nit ñi te bëgg Sénégal rek mooy fay na nit ñi dellu ci Sénégal di waxtaanee Sénégal